man nag guloba la may fàttali du yóbbu du furi kenn du ko ñambaas garanti la. garanti la waaw noo koy waxee moom ñaani nga ne ko du du du lakk du way du fuur. eh <laughs> waaw. <laughs> donc ñaani ngay toogee say hamburger tey. waaw Baye effectivement comme ni ñu ko waxee rek euh, huile ñaani euh, huile la boo xam ne 100 pour cent arachide du lakk du way te du fuur euh, dèjà nii moom laay toggee tey comme ni ngeen ko gisee ni commencé naa li nga xam ni mooy plat du jour tey bi dèjà am naa fi ay steak yoo xamante ne ni viande hachée la. dama ko def tuuti ci poêle bi euh, def tuuti huile ñaani euh, sotti ko ak moom tuuti mu am euh, gu ma def tuuti sel tuuti poivre ak tuuti persil coriandre bi nga xam dañ ko émincé moom laa def ci kaw comme ça que mu gën a relever li nga xam ne mooy goût burger yi ñu andi tey déjà ni teg naa sama poêle taal gaz bi la plupart du temps booy lekk burger da nga ciy sentir oignon bi nga xam ne après goût bi xeetu soble bi dafay des sa gémmiñ bi mais tey mën nañu defa benn burger boo xam ne mën nga ko lekk sans pour soble bi xet bi du des sa gémmiñ euh, dama teg euh, sama poêle dama ci nag euh, gis nga ni dosette huile ñaani bi moom laa utiliser damay ñëw rek def ci tuuti soble bi nag déjà dama ko dagg en rondelle yu mag laa ko def damay ñëw nag sotti ko tuuti ci li nga xam ni mooy <laughs> ci li nga xam ni mooy poêle bi bu ma defee oignon bi damay ñëw rek def tuuti persil coréen daal di def poivre su ma paree aussi ma def ci tuuti sel gis nga ni sel poivre ak euh, kii bi rek euh, moom laay def déjà ni dañ ko ci revenir tuuti rek su ko defee boo koy lekk sa gémmiñ du am euh, benn xeetu soble après voilà li nag pendant ce temps soble bi di am tuuti couleur mën naa ñëw yeggali li nga xamante ne ni mooy sur le plat yi nga xamante ni tamit dafay am ci li nga xam ne mooy bërgër bi gis nga ni sur le plat moom yomb na da ngay jël benn poêle boo xam ne du collé nga def tuuti huile ni def nen bi déjà nii gis nga moom euh, ñor na damay ñëw jël tuuti gruyère rek daal di ko ciy def mu fondre ak moom ci tàngaay bi voilà nii rek oignon bi moom mën naa wàññi gaz bi su ko defee mu bañ a xëm voilà nii rek. ñu am fii suñuy tomate yoo xamante ne moom tamit dañu koy dagg en rondelle parce que tey dañuy defar ay burger yoo xam ne yii dafay doon viande hachée yii doon charcuterie mooy euh, jambon poivré bi ma andi tey nar ci def tuuti ketchup ak euh, mayonnaise lii nag boo nekkee sa kër boo bëggee benn reer wala benn añ bu vite fait mën nga ko defar oignon yi déjà mën nañu euh, fay li nga xam ne mooy gaz bi nen yi tamit baax na mooy sur le plat yi mën nañu fay gaz bi yëpp c'est bon mën nañu jegale li nga xam ne mooy ingrédients yi voilà nii rek ma yëkkati li nga xam ne mooy assiette bi def samay euh, pain burger voilà plan de travail bi mën naa ko pousser comme ça mu mën a teg bu baax déjà fii tamit am naa fi fromage bi nga xam ne moom mooy spécialement mooy dem ci li nga xam ni mooy euh, burger yi voilà moom mën naa ko détaché gum nii rek daal di teg. su ma paree damay ñëw rek jël li nga xam ni mooy burger bi gis nga nii déjà ubbi nañu ko ba pare ma am ñaari extrémité yoo xamante nii euh, moom laa utiliser euh, li nga xam ni nag mooy charcuterie bi mën naa ñëw teg ko nii ma mën a utiliser assiette bi yëpp mën nañu ko teg ni daal di puusale yi voilà daal di teg plateau bi nii mën nañu ko fompaat ba mu gën kii dañuy ñëw rek gis nga nii jël li nga xam ne mooy euh, couvercle bi moom la ñuy teg na la jël support bi dem ci suuf teg ni voilà gis nga nii nag bu ñu defee nii nag soo ñëwee nag directement nga jiital li nga xamante ne nii mooy euh, ketchup bi boo koy lekk da ngay sentir que ni pain bi dafay tooy moo tax de préférence da ngay ñëw njëkk teg li nga xam ne mooy euh, tomate bi laay njëkk a teg ci suuf bu la neexee aussi mën nga utiliser li nga xam ne mooy euh, laitue bi moom mooy salade bi nga njëkk ko teg ci suuf mais man tomate bi de préférence moom laay njëkk teg comme ça boo tegee steak yi def mayonnaise ketchup bi dafay tenir pain bi voilà mën naa def ni su fi sans ketchup bi ci digg bi mooy doon sans ketchup bi ci des dama ciy def euh, <laughs> ketchup <laughs> non bi ci digg bi mooy sans ketchup <laughs> déjà gis nga ni bi ci digg bi mooy sans ketchup mais dina am mayonnaise voilà ma daal di ñëw aussi moom it def tuuti mayonnaise légèrement après ci kaw aussi dañ ciy rajouté waat voilà gis nga nag su ma defee nii ba pare damay ñëw jël li nga xam ne mooy steak bi daal di teg fii directement jël li nga xam ne mooy euh, nen bi daal di teg jël euh, rondelle d'oignon bi daal di ko ci teg nii su ma paree bii tamit comme que charcuterie lay am moom it damay ñëw rek def même chose voilà mën nañu teg ñaar parce que ay euh, kii yu fin la voilà ñu daal di jël aussi sur le plat bi nga xamante am na fromage gruyère bi voilà attention moom tamit ñu teg ni fii tamit mën nañu continuer def ci steak voilà bi tamit ñu def même chose ñoo jël sur le plat bi moom it daldi di teg suñu paree aussi ñu def même chose def rondelle d'oignon voilà gis nga nii rek buñ ko defee nii nag ba pare dañuy ñëw jël suñu fromage bi nga xamante ne nii moom spécialement la pour euh, pour ay gratin wala li nga xam ne mooy ay burger gis nga nii ñu dindi ko attention gis nga nii danga koy bàyyi au frais parce que bu génnee lu yàgg mooy waral ni boo koy dindi ci li nga xamante ne nii mooy papier bi dafay tas mais bu fekkoon mu ngi au frais ba tey boo koy génnee doo ci am euh, benn problème voilà gis nga nii rek. moom it ñu daal di koy teg nii ci kaw oignon bi nii déchets benn bi moo des moo amagul fromage ba tey dafa détaché wu mais c'est pas grave parce que boo ko dugalaatee ci ci four bi dafay euh, gratiné wu foofu tranquillement voilà bu ñu paree nag euh, dañuy jëlaat tuuti ketchup gis na nii rek waa bi ci digg bi du am ketchup <laughs> ma def bi ci digg bi moom tuuti mayonnaise rek lañ ciy def voilà voilà nii rek suñu paree nag ñu daal di jël tuuti poivre bu la neexee aussi mën nga ci def euh, moutarde ça dépend ci yow mais man tey mayonnaise rek laa def ak ketchup yii boobu boobu poobal naa ko voilà gis nga nii rek suñu paree nag dañuy bëgg boo koy lekk euh, mu am gu dañuy jël euh, gis nga ni persil coriandre bi moom dafa baax sax de temps en temps ngay jël benn feuille di ko lekk parce que dafa baax ci suñu wérgu yaram damay jël benn feuille rek daal di defaat nii jëlaat beneen feuille defaat ni su ma paree nag gis nga nii burger yi tomate steak euh, sur le plat bi ak fromage bi moom laa jël teg ak rondelle d'oignon boo xam ne dama ko rissolé waaw gis nga nii rek damay ñëw fermer ko nii directement. beneen bi tamit ma tegaat ni beneen bi aussi ma tegaat ni li nag euh, bu fekkee lekkuloo ko léegi ni mën nga préchauffer sa four mais four bi boo ko taalee bala nga ko ciy dugal danga koy fay dangay taal four bi bu four bi tàng bu fuur bi tàngee rek yow da nga koy fay soo fayee fuur bi dugal ko ci bàyyi rek euh, benn 5 minutes wala 7 minutes mu gratiné wu waat fromage bi ànd ak euh, viande bi lépp àndandoo mu tàng nga génne daa teg sa benn assiette daal di dégusté Baye voilà donc affaire américain hamburger. Ouais. burger au jambon et à la viande. moom nga ñuy togg